ndax Pokola pare nga Liss Ndiago pare nga ndeysaan xale bi mooy doomi As Mbaye baayam mun naa wax ni mu nga dëkkoon Kaba arbitre bi la génn seen diggante Pokola ak As ndeysaan Pokola Baldé ak Liss Ndiago Pokola ngay diroo ko uti ko liis jokkaas na waaye liis mayil ma xale bi ngay bëreel sekkital na ko yor na ko baadu ko door ko allahu akbar allahu akbar allahu akbar Pokola liis njaago mu daanu ndax avant muy génn la wula bim génnee la ndax avant muy génn wula bim génnee la ndax avant muy génn wula bim génnee la nañu xaar arbitre nañu xaar arbitre nañu xaar arbitre nañu xaar arbitre ñoom ñaara ngay lëngoo di génn di ñibbi Pokola da koo dóor mu daanu ndax bi mu koy dóor génn na wala génnul lan moo xew lan moo xew lan moo xew oh! allahu akbar allahu akbar laa mu ja na la arbitre bi wax lan la arbitre bi wax lan la arbitre bi wax lan la arbitre bi wax loolu moo mat a laaj dëgg doomu as mbaay ñii nañu ko bàyyi xel bàyyi mbër la woon maa la wax loolu champion la boo xam mi ngi jamononte woon ak ku ñuy wax Badle Ziki ak ku ñuy wax Max Mbargaan jamonte ak Mbaye Fall ak champion boobu ñuy wax Ngéylu ñooñu la bokkaloon génération baayam mbër la mbër la maama mbër la nijaayam mbër la yaayam sax mbër la ma la wax loolu ndeysaan mi ngi noonu moom Papa laa Baldé ma ne na ko làmb bàyyi xel day na ko lu xam ne dafa diis sëtu mbër la li jaga waru nangu ak gëstu ma ne sëtu mbër la doomi mbër la genn baatu mbër la moom Papa laa Baldé Papa laa warul li Saka waxal ak kesal ku Pokola. maa la wax loolu wax bi dafa diis. loolu bu ko jëlee wàcc. man dama ne combat bi man bu àndu ma ci. combat bi bu ma yoroon Liss Ndiago du bëri ak Pokola Baldé. waaye bu ko accordé wul. waaw à partir day indi coow. mais dañuy bëri waat. dañu bëri waat en tout cas lu mënti xew dañuy la commencé. waaw bi mu koy dóor benn tànk bee génn loolu man wax maa la benn tànk bi rek moo génn. xoolal mi ngi ne. gis nga ko maa la ko benn tànk bi rek a génn. ma ne suite la suite la jël la. Ah, na bu at bu wul. mais bu soufflé demul yoon. arbitre action da ngay bàyyi ñu génn wala soufflé Pokola bu ñaari xale yaa ngi waaye Pokola dem na Ardo Pokola dem na Ardo ma nga loxoy docteur ya dafa mel ni benn croisé rek la ko Liss Ndiago dóor ma ni ma nga ca ya a nga Ardo ma ngay wax ak supporter ya ah waaw waaw waaw Pokola nga Ardo ma ngay wax ak supporter ya wallaay ndeysaan xale bi courage la dafa am courage borom jom la borom mbër la man maa la wax lii wallaay ndeysaan moo gën a moo ëpp résultat ci làmb ji dañ ko bàyyi xel gis naa ñu fekk ñu dóor ko dóor yoo xam ne waaw bari na mbër yoo xam ne ko dóoroon ñu wori waaw fi mu mujj diggante ba gàkku dóor waaw jom moo ko génne gis nga. mais arbitre dafa seet suuf loolu ma jaaxal. ah xaw ma daal suuf leen waaye bu fekkee suuf leen dafa juum. maa la wax loolu. ndeysaan. Pokola delsi na. nee na ndax dañuy bërewaat. dañuy bërewaat. loolu la arbitre bi wax. maa du delloo buum ca boy boy ba. ndeysaan Pokola Balde. Pokola Balde. ndeysaan doomi as mbaay ji ndeysaan ak Kumba Balde maa la wax loolu arbitre wax na dañuy sifflé waat Liss Ndiago lañ jàkkaar lool boko la moo won ginnaaw eh waay bis bi rëy na combat spécial bi rëy na avertissement la ko jóg avertissement la ko jóg coup irrégulier nee na bi mu koy dóor daa sifflé wala mu génn loolu la arbitre bi wax waaye boko la koy tiree ko uti ko mbaa du ko ko defaat ma ne maa du ko dépassé na moom moom Liss Ndiago moytul jël droit tam bi di ko jël leexoo ko ba na ko jàpp na ko maa ko maa du ko gaañ maa ko gaañ door na ko moom suuf waxalaa na ngay xeex door mu daanu door mu daanu door mu daanu waa dóor mu daanu lu ci am eh waay bi métti na ñi ñaar seen combat nii la mën mel ña koy raak ña koy mbaa du ko gaañ mbaa du ko gaañ ko gaañ dana ko rey dana ko rey allahu akbar allahu akbar ñaari xale yi seen làmb ta yomb seen làmb mën ta yomb départ ba ba nii la mel maa la wax loolu dañuy jihaat dañuy jihaat ñoom ñaar dañuy jihaat ñoom ñaar ji neex na lii rek doyoon na grand combat lii rek doyoon na grand combat eh waay Pokola ma ngay diree ko wuti ko Liss Ndiago génn na Liss Ndiago na non man it mënatu ko man it mënatu bu jël na Liss Ndiago waxoon naa avant. am. maa mbetteel du ci am. damay bañ bokk laa yaakaar ni xale bi fekk rexal ko loolu bañ da koy iri da koy iri da koy iri xool ko ma ngi koy tooñ ma koy tooñ ma ngi koy tooñ te ab loolu baaxul d'accord ma ci gisoo door na ko gos door na Guido ba dem ndeysaan moom Pokola Pokola Pokola koy toppat ñaari xale yi seen lamb mënut a yomb moom Pokola Baldé ndeysaan ndeysaan Pokola ma koy accéléré ma koy accéléré moom Pokola Baldé. yaa ko jàppante bi lay daw ndeysaan oh ah, lamb ji ah ma ne ja ngay xeex yow na juyoo kor na ko ma ngay door mbaa du gaañ jàppante eh mayul ma ma xale la Pokola ma xale bi ragalu la Liss Ndiago ko jàpp baax na Pokola Liss da koy door Pokola mayul ma xale bi Pokola Liss Ndiago fayu na. daa jël coup daa jël coup. Liss Ndiago fayu na. Liss Ndiago fayu na. Liss Ndiago fayu na. Fala Baldé daa jël coup. daa jël coup. combat bi neex na waay. moo tax ma la mbetteel. waaw mbetteel nañu moytu mbetteel. dama jël coup gis nga. Fofala dem na Ardo nañu moytu mbetteel. dellu na Ardo. Fofala Baldé dem na Ardo. dellu na Ardo ndeysaan. boppam moom Pokola Baldé loolu la Liss Ndiago defoon def na ko tey daal Liss Ndiago gaynde la Liss Ndiago démérité wul ndeysaan arbitre souffle arbitre baa ngi leen di waxaat ñoom ñaar li làmb bëgg ak li bañ dafay mel ni bu Pokola jëlee avertissement dañ koy séddoo dafa mel ni bu Pokola jëlee avertissement dañ koy séddoo ndeysaan Liss Ndiago ngay commencé am confiance ba ngay bokk ci làmb ji Liss Ndiago ngay commencé am confiance ba ngay bokk ci làmb ji ndeysaan moom Liss Ndiago arbitre ngi wax ak ma ngay consulté ay jugeem sifflé waat na sifflé waat na lan moo xew ay jugeem waaw avertissement ba loolu la fàtte woon a joxe noonu la sortie délibérée dañ ko tolloole ku ci ne am na ñaar arbitre sifflé waat na génn seen diggante Pokola Baldé teel Pokola Baldé teel xale bi ngay bëreel daanaan la Liss méb na dafa bëgg a bëri ji ndax daa bëgg a bàyyi xeex bi dem bëri ji moom Liss Ndiago Pokola Baldé Pokola Baldé koy liir waaye Pokola na moyu na moyu jël ko daw na jëli ko yooru na ee eh, arbitre non non arbitre dafa soufflé gisit bu njëkk ba moom la sifflé waat moom Malick Ngom te amoon gisit bu njëkk ba moom la sifflé waat moom Malick Ngom en tout am ay recours dina bari kenn ku ñu daan na sa borom ca ginnaaw kenn ku la daan na sa borom ca ginnaaw am na ñëpp wallaay ndeysaan mu mel ni am nañu 10 minutes boo xam ne kenn dootu ko fàtte ci ñoom ñaar 10 minutes am sàppale am ñoom ñaar li ma ci jaaxal mooy am na ci ci benn ngoon ci benn takusaan kenn ku la daan sa morom wallaay loolu jaaxal na ma fii noonu mu mel ni kenn ku ci ne tey ji même boo daanoo sa sëriñ naxuloo am nañu way ñoom ñaar maa la wax loolu seeni sëriñ am nañu ndam ndeysaan ndax ku wax mun la jël ba nga daanoon moom laa andi woon maa la wax loolu wallaay la combat bi day layal sëriñ. waaw sëriñ yëpp am nañ lay tey. am nañ lay maa la waat na kenn seen diggante. bare nañu fukki minute ba mi-temps. ko appel na ko. waaye ki nga xam ne taxaw na di ko xaar. voilà ngay bëgg a léegi waxoon la nga téye ci mbiri xale bi waxoon naa ba ne waxoon naa la nga téye ci mbiri xale bi ndeysaan jaaga woor yaa ko war bi yow it ma xale bi ngay bëreel bi ngay bëreel baayam mbër la maamam mbër la ay maamam mbër la ñu ndeysaan na dugg ca garde ba bo xalaa koy accéléré na mu doon def ndax day wàcc jël ko ca suuf day wàcc jël ko ca suuf wala lan lay def Pokola dugal na dugal na Liss Ndiago ci lamb ji dugal na ko ji xëy nañu xeex wàcc na jël ko wàcc na da ngay xeex lépp na waxalaa teel ci xale bi waxalaa Baldé teel ci xale bi xale bi waxalaa Baldé teel ci xale bi ndeysaan waxalaa Baldé dafa bëgg a jeexal combat xeex bee ko gënal ndeysaan Pokola tey mbër yi nga doon dajal ki nga dajal bokkul ak ñoom ndeysaan ki ngay bëreel bopp lay bëreel comme duggee ci lamb yàggul waaye commencé naa am expérience lamb moom Liss Ndiago ndeysaan tey Mbaye Babacar la ñu àndal bool bool bu mag bi borom Leewtoo TV ndeysaan doomu ndey Etienne borom Diourbel tey moom a wekk micro tey moom laa àndal mooy sama xarit maa la wax loolu barke yonent bi ndax tuqali cigarette yi sax dañuy toxalante tey Mbaye Babacar a jox micro bi ñoo ngi fii ci arène nationale ci journée Baye Ndiaye Ewen di combat bu mag dox ci di ah eh, daw na jël ko jël na tànk ba eh, Allahu akbar non foko la mbër la nooju na ko mu génn laa ilaha illallah laa ilaha illallah noori la non combat bi bëri feeñ na fi xeex xeeñ na. voilà ba léegi li déggoo. ndeysaan. góor eh! na ngay door ngay door. ndaw ndaw moyul. Liss Ndiago moyul. te eh waaye combat bu mel ni gëj na fee am. combat bu mel ji buñ masu nii loon sax jaadu na walaay buñ masu nii loon jaadu masu nii loon sax jaadu na seen contrat mën na gis naa bëre gis naa xeex walaay ndeysaan bi combat nu fay di trente quarante millions cinquante millions bi yoo ko dàq moo ko dàq nag moo leen commencé dikkal ñoom ñaar waaye lii ku ko seetaan. waaw xam ni bokkul ak Bombardier ak Franc. nañu waxante dëgg. walaay dëgg la nañu xool xaalis bi ñuy dugal ci lamb. ci xel waaw nañu xool ci combat yi nu koy def. nañ ko jox xale yi. nañ ko jox xale ñoo ko mérito. ñoo ko wax loolu. dëgg la dëgg la diggante Pokola Baldé ak Liss Ndiago lu ñu leen fay jar na ko li ñu fay Bombardier ak Franc li ñu fay ñii boo ko war a ëpp ndax li ñuy def ñooñu defuñu ko waxante rek ñëpp a kontaan mbokk ndeye koy jur xoolal ma Boy Niang nee di pikit te jóg na ndeysaan maa la wax loolu combat bi neex na yàgg na waaye Joona ngi bëgg a feeñ Joona mi ngi bëgg a feeñ Joona mi ngi bëgg a feeñ ku bëgg Joona ngi bëgg a feeñ ku ëpp entraînement jàppante par eh non kon nag ma ne la loolu baaxul Liss Ndiago moyul ma ku yooyu baaxul Liss Ndiago moyul ma ku yooyu baaxul Liss Ndiago ngay accéléré Pokola koy aspiré daje nañu allahu akbar la ilaha illallah e waay ji lamb neex na e waay ji lamb neex na e waay ji lamb neex na e waay ji lamb neex na Pokola dellu dellu na ardo xale mën nañ ko jàngal xeex nañ ko nañ ko jàngal xeex na defar garde bi na defar garde bi na naa mën naa naa xeex waaye garde bi baaxul moom Pokola Baldé moom Pokola Baldé benn défaut dong laa gis garde bi baaxul am na fit mën naa bëre am na jom waaye garde bi baaxul am na ku yoo xam ne boo ko jëlee ci làmb sa làmb yàqu xale bi ngeen dolli xeex bi doon leen defar garde bi jàppale leen xale bi ngeen doon xeex bi ngeen defar garde bi mbër la mbër la mbër la mbër la moom Pokola waaye kenn du liif Ndiago kenn du liif Ndiago kenn du Ndiago or bi maa la wax loolu. am na moo am 3. Pokola am ñaar loolu am na mi noonu. Liss Ndiago am na trois avertissement ki nga xam mooy Pokola am na ñaar defe naa ne Pokola day bëre waale loolu avertissement yi. waaw am avantage ci avertissement. daa waroon moom bu doon mën a moo tax Liss mooy bëri ji léegi na ko aspiré xaar ko. na ko aspiré xaar ko. kay mag andee loolu lañ koy wax temps bi li ci des bariwul. bariwul diggante Liss Ndiago ak Pokola Baldé. ndeysaan cinq minutes bariwul ma ngay xeex moom lii waaye picc nga ca kaw waaye xel maa nga ci maa la ko wax day ñëw walaay li may wax du deñ waaye mais bi nga ca kaw xel maa nga ca suuf bi nee ko nga taxaw bëre jeex na Pokola am na ndam Pokola am na ndam Pokola am na ndam. bu jeexee Pokola am na ndam. mooy am ndam. bu jeexee Pokola mooy am ndam. bu jeexee Pokola mooy am ndam. bu jeexee Pokola mooy am ndam. bu jeexee Pokola mooy am ndam. jeex na jeex na mooy am ndam wax na dëgg moo am ñaari avertissement wax na dëgg waaye làmb ji neex na. Oh. ay ñaari xale yi seen combat bi rëy na ñaari xale yi seen combat bi rëy na ay gar yo lañu luñ leen fay jar na ko luñ leen fay na ko ndax dina combat bi ndax dina combat bi